Eh, di leen jox seen wàccuwaay. maa ngi nuyu sénégalais yëpp. fu sénégalais nekk maa ngi nuyu di nuyu. région de Saint-Louis département Dagana. na commune di Gnith bi nga xam ne yàlla dogal na maa ko jiite si jamono yi nu toll. waaw commune bu ñu nekk tur bi fan la jóge waaw turu Gnith nag man wax dëgg yàlla eh, leeru ma. xam naa daal eh, dama judd rek dégg Gnith bi. Mhm. ñoo juddu dégg ñi bi mu nekkoon si commune Ross Béthio si la bootu woon e, ba 2009 yàlla dogal na si la Ablaye Wade dagg commune de Gnidj ak commune de Diama e, commune de Gnidj bi ñu koy dagg boobu mi ngi toll si cinquante villages e, tey mën naa ni soixante quinze villages mat naka ndax am na lu mat vingt cinq villages amu commune bi nag nekk na commune boo xam ni commune yu sàmmala ak baykat ndax yàlla dogal na commune boo xam ni am na jur am na suuf am na ndox mbay mi développé na fa lool macha allah e càmm geet développé na fa laata ñuy ñëw ci loolu commune bi bii mooy yow yaa nekk ban maire bi nga xam ni ñaata nit jàll nañ ci e, li nga xam ne moom moo jëm ci commune ba nekk maire waaw commune bi comme que 2009 euh, la juddu yàggul mu nekkoon comité rural sama benn rak ku ñuy wax Mama Ba jiite que ma nekk at suim bay yàlla dogal mandat boobu jeex Macky Sall wëlbatiku soppi commune euh, comité rural yi def ko commune yàlla dogal booba ak tey ma jiite ko bii mooy sama deuxième mandat yow yaay maire bu njëkk tey bañ ne commune en plein exercice yow yaa ko jiitee gum commune ñiit waaw maa maa ko jiiteegum daal euh, defoon naa mandat euh, nit ña amaat ci man confiance pour bëgg ma eggale li ma sumb ñu joxaat ma seen confiance pour ma mën a continuer eggale li ma sumb mm-hmm. yaa ngi ko doon wax tey commune bu ñiit bari na ay euh, mbir yu fasantikoo sàmm geeg bay yaa ngi ne am na fa doole bu baax mm-hmm. tey ñu jël wàllum mbay mi mbay mi doolem fan lañ ko mën a nattee ci commune boobu waaw mën naa ni tey jii bu dee si eh, wàllu horticulture mën naa ni tey jii communes yi ne si Sénégal commune di Gnith moo si raw si wàllu horticulture donte nga xam ni ah, maraîchage mi ngi juddoo si ñaay bi waaye yàlla dafa dogal nu ëpp leen suuf ëpp leen ndox Eh, di si bay surface yoo xam ne ni yu yu takku a ba fii mu ne rek ñu am partenaire yoo xam ne ni eh, dañuy def gagnant gagnant am na benn partenaire boo xam ne ñu ngi koy wax West Africa Farm eh, commune bi dañuy lëkkaloo maanaa ñu joxoon ko deux cent hectares jox population bi des cent hectares yàlla dogal ñu gis si moom njëriñ ñu yokk ko yokk population bi ba tey mi ngi tollu si sept cent hectares waaye mi ngi jël lu mat quatre mille emplois si commune bi. Mhm. Eh, te lu mu lu mu bay nun am nañu lu ko tollu di ko bayal sunu bopp. Eh, te itam partenaire boobu am njëriñ lool si askan wi ndax fii nu toll rek dañuy signanteeg moom mm, convention boo xam ni chaque année. bu noor bi desee ay ñetti weer ak yooyu dana bayal sàmm lu mat quarante hectares à ñir ñir euh, kii ka ñaari yoon si at mi muy quatre-vingts hectares. mu ko ñaari yoon. waaw kon loolu defe naa lu am solo la. dana dimbali jur gi ba heure boobu bu jotee dootu ñu wut aliment bétail euh, si foofu la ñuy dem. yóbbu ñi yóbbu seeni saret ñi am oto yóbbu seeni oto ñi kii léegi sax si euh, convention bi wax nañu ko sax yaa di wut machine boo xam ne moo koy góob balotek ba loolu yëpp partenaire bi d'accord na si kon nekk na lu am solo si commune bi e, te itam am na lu muy jàppale si commune bi si wàllu bigse bi e, bu dul woon ak moom dana xaw a gën a sant caam ah, waaw léegi ci jamono joo xam ne euh, mbay mi ñu ngi wax soble ñu ngi wax pomme de terre njëg yi yokk xanaa ñiit moom foofu kon njëg yi moom yokkul waaw xam nga démb rek maa ngi déglu benn débat dama reeb tëdd si suuf parce que nit ñi dañuy wax loo xam ne xamuñu si dara mbay mi euh, soble bi tey Sénégal egg na si foo xam ni man na jot boppam mën na jot boppam si eh, soble dootu ko wuti fenn. waaye nag si ay conditions. comme yan. waaw maanaa ñi jàppale nit ñi. si ñuy jot financement heure bi ñu ko war jot. ñi formi nit ñi pour ñuy béy qualité. parce que soble bi lu bari ñi ngi wax dafay yàqu di si soow état bi te fekk si nun béykat yi la jóge ah yàqu-yàqu bi ci yéen la ci ñoom béykat yi la. waaw waaw man maa ko wax man a Adama Sarr. dama ne lu si ëpp. dañuy wax état bi fekk si béykat yi la joge parce que il faut ñu bay qualité. suñu bayee qualité dana yomba denc suñu leen jàppalee si ay sàmbar euh, yoo xam ne mën nañu koy mën nañu fay concert mi at mi yëpp est-ce que du état ko war a def chambre froide waaw état moo ko war a def mais bu ko état defee te li ñuy béyee bàyyiwuñu ko du jëriñ dara il faut nu gëm ni qualité la ñu war a béy qualité bi nag il ñu am ay techniciens yoo xam ni dañuy ànd ñoom foofu noonu ñu fay bay qualité non am na ñuy béy qualité am na ñu bayul qualité parce que nit ku nekk li ko doy rek lay def waaye dafa war nekk obligatoire pour nit ki li muy bay mu nekk qualité soo ko defulee ñi teg la ay daan mais bu ñu nee la Euh, euh, cent kilos nga si war def si soble bi nga def si trois cent kilos ñu ne la façon engrais bii nga si war def dix dix vingt nga dem jël euh, deux cent kilos dix dix vingt cent kilos urée wala cinquante kilos urée nga dem jël trois cent kilos urée def ko si daf koy togg daf kay togg même bu ñoree du am qualité pour denc wu boo amee nag diir tuuti kenn jëndu ko mu yàqu ñu naan wala sunu mbay mi sunu mbay mi te fekk na am na loo xam ni si état bi la waaye am na loo xam ni si nun la léegi tey lees mën a def ñu jubbanti ko comme ñi est-ce que ñi tey warut a mën a nekk solution ci soble seeg pomme de terre beeg yooyu ñu fay bay waaw ñi fi mu toll am na aménagement yu bees yoo xam ne population bi rek li ñu leen aménagel euh, dem na si mille ay deux cent cinquante hectares yoo xam ni population bi ñoo ko moom noonu mu nekkee suuf bu bees su fekkee dafa ànd ak financement yoo xam ni dañu ko teg ci yoon mu ànd ak euh, ay technicien koo xam ni nii respecté wuloo euh, technique bi ñu teg la ay sanction dana dindi lu bari ndax xam nga mille hectares tey jii suñu ko bayoon soble hectare bu ne man génnee trente cinq tonnes ba quarante tonnes comme yéede tonnes waaye nag tànk ni li nu def suñu bopp moom la ñu continuer lu nu jóg si tooñ état dégg naa sax béykat yi wax dañuy manifeste waaye lu si ëpp si nun la. li ci ëpp euh, daanaka du ci mbay moobu rek napp gi itam yaa ngi ko doon euh, fësal. ci ñiit googile ndax xam la ñuy napp wala ñu koy jaay foofu commune bi mu ngi ciy gis boppam. waaw commune bi mi ngi siy gis boppam ndax bu si amul coopérative. Ah, waa commune am ñu ngi siy dund. waaye napp gi doole ji dafa manqué. lan moo ko waral. dafa dañu amul ay gaal yu baax. Euh, matériel beet manqué na yooyu nag dafa laaj ñi yore napp gi ñi jàppale pêcheurs yi ñu mën a am gaal yu baax ñi jàppale leen si fiile yi nga xam ne nii moom la leen seen norme jox ñu mën kaam ndax si lag bi amul jën woo xam ne amu fi waaye am na yoo xam ne sax fiile yi ko man jàpp amu fa kon loolu dafay nekk taraf ok est-ce que lu loolu tey moo waral immigration bi maanaam màngaani bi bëri tey Euh, parce que jeune ndaw lu ci xool toog fa gisoo lu nga kii da ngay jël gaal yi dem. non commune de Niith moom. yàlla dogal na ñi demoon sax ñi ngi dellu si. ah lu waral loolu xanaa da nga am politique bu nga fa indi. waaw commune de Niith xam nga nun lu nu gëm. Euh, moo di kiy dem. yaakaar ak yóbbu. mais bu demee ba gis ni ñi mu bàyyi si gannaaw ñoo ko tane day dellu te nun tey jii ña nga xam ni immigré yi lañu ña fa toog di bay li ñu man immigré mënuñu ko kon il faut loolu moo leen xëcc pour ñu dellu si ma ne tam son politique bi may def fu ma génn si àddina bi danaa seet sénégalais yi fa ne seetum ko rek ku dëkk si commune di ñi foo mën a dëkk si sénégalais te ma mën la gis danaa la xamal ni li ngeen di wut fii bàyyi ngeen ko fa ngeen jóge li des kay ñu organiser leen ba ngeen man egg si suuf bi ñu organiser leen ba ngeen am matériel agricole mais est-ce que du loolu mooy jafe-jafe bi tey waaw euh, jafe-jafe nekk na jafe-jafe nekkul jafe-jafe ndax nit ki lu mu gëm rek yàlla fekk ka si euh, état da ngay am sa pas-pas lu yàgg mu dem ba trouver ni lii kat ñi ku leen jàppale dañuy dem ndax bëgg nañu dem mu def si loxoom ñu dem waaye bu fekkee ne dañu bëgg jël lépp teg ko si état kan mooy état ñun nooy état ñun nooy état population mooy état population moo mën a jàppale état defar sénégalais nag li ñuy jàppale état wax ju bare te wax du defar dara jëf mooy defar léegi nag pexe bi mooy est-ce que du lal ab politique boo xam ne ñëpp dinañ ci ànd nun noo ngi si noo ngi si jokkoo sayet di ko sant ndax nekk na service boo xam ne nii boo am solo la bu am doole. ci naka mu ngi leen di jox koppar wala mu ngi leen di jàppale ci liggéey bi. waaw li mu nuy jàppale mi ngi nuy jàppale si technique di nu jàppale si bu nu amee problème si aménagement yi mu wallu nu bu gaaw eh, nit ki danga koy jàngal ni ngay liggéeye wan ko yoon wu muy liggéeyee waaye koppar mënul daj ñëpp te loolu sayet mi ngi si suy rôle bu rëy ànd seeg nun muy guddi muy bëccëg heure bu ma téléphone téléphoné ni ko problème am na place sàngam bala ñuy amati jàmm dañu réglé loolu. Massar la lañuy dalal ci émission gox bi fii ci rajo mi FM euh, yaa ngi ko doon wax Sayed mi ngi leen di jàppale ci di leen accompagner mais est-ce que ci wàllum politique ndaw yi nga xam ni ñàkkum xëy est-ce que foofu itam mu ngi leen fay jàppale. waaw xam nga nun kam ka mbay lanu gëm. nu jàppale si aménagement kay jàppale na la si xëy ndaw te nun dañu gëm ni tey jii boo seetee lii ma lay wax ne la lu mat mille deux cent cinquante hectares aménagé nañu ko fa aménagement bu bees si commune bi ñi kese laa la wax loolu dafa lay may nga mën a am deux mille cinq cent personnes yu fa am xëy kon daa mel ni commune bi kenn toogu fa de. non ñoo ngi sant yàlla. ndax boo demee si commune bi. si terroiru Sénégal bari na gox boo xam ni nii doomu ma nga ak si sous-région yi ñu jóge euh, Casamance ñu jóge gambi ñu jóge Guinée ñu jóge Fuuta tout le terroir du Sénégal boo fa demee daa fekk seen doom ci commune di ñi waa léegi dafa mel ni kon ñiit ab gox la boo xam ne ay dëkk yu fasantikoo ñoo fa daje ngir ut si daan si doole mais est-ce que yéen loolu mi ngi yombalal commune bi ndaw yi nga xam ne itam ñoom ñoo dëkk foofu ci wàllu xëy lool ndax euh, boo gisee am na ñoo xam ne bi ñu ñëwee rey mu laaw bi mu fi ñëwee ñoom bi ñu leen joxe kàddu ñoom dañu ni seen xel dafa newoon ci génn senegal waaye lañu doon wuti gis nañu ko ci commune bi ñi kon ñoom soxlootu ñu dem fenn ba yaakaar naa ni bu fekkee ni yeneen doomi gox ñoo am gëm-gëmu ni la ñu nar wuti euh, mi ngi ci commune bi ñi ñoom li ñu wax ministère bi moo di dañu bëgg ngeen gën a jàppale population bi si aménagement yi mu yaatu. ndox mi fu mu war dem ñi mu dem fa ndax ñun fii mooy sunu Espagne mooy sunu Amérique mooy sunu Italie. commune bu ñiit du mbay ak sàmm rek parce que itam am na jumtuwaay yi nga xam ni war nañ fa l'école comme tey école ñu ngi ci vacances. Euh, pare nañ bac bi pare nañ BFEM. Euh, yooyu noonu tey ndaxam école bu ñiit am na ci ay résultat yu am solo. waaw kël bu ñi yàlla dogal na defe naa si candidat yi amoon nañu cent quatorze xaw ma waaye ñëpp jàll nañu cent pour cent la euh, si CM bi léegi nag li nu doon ñaan ministère bi moo di mu may nu classe seconde nangu naka ba dolli nu si sax trois cent table bu baax amoo leen lycée kon non amuñu lycée waaye noo ngi yaakaar ndax ministère bi nangu na noo ngi waxtaan ak o ak euh, ndax CNO bi fi SDE ne moom jëloon na engagement tabaxal nu quatre classes dem naa gis directeur su CNO nee na quatre yi du ko man waaye li mu man dana ko def léegi ah SONESED ah mi ngi bàyyi xel moom dana am lu mu def bu fekkee nag seen wa dafa def dara SONES def dara commune bi def dara eh, classe yi ñuy soxla dañu koy daal di. yéen commune bi loo leen def. waaw nun ngi aju ñoom bu fekkee ni ku nekk mat nañ quatre classes deux classes te donte kee quatre la waxoon bu mënee deux kii def deux mbaa kii def un bu manqué commune bi mottali su fekkee ni mat na nag commune bi préparé beneen yoon. commune bi daal di préparé dafa mel kon yow l'école bi da jox àkkam ba mu mat sëkk ndax lépp loo xam ne jumtuwaay la mu war dem doo ci tardé mel na ni. déedéet nun école bi xëy na sunu compétence sax si école yu ndaw yi la jëm waaye nun même sunu étudiants yi nekk fii si Dakar at mu ne commune bi dafa leen doon jox subvention. jox subvention 4 millions bu ren 5 millions sax lañu ko defoon daaw ak ren. Mm-hmm. ren na xëy na jotaguñu ko ndax fonds de concours yi ak dotation yi moo xawoon tardé waaye nun bàyyi nañu leen xel ndax lépp loo xam ne ni état baa ngi koy def daanu si jël jël si doole ju ñu am si commune bi boole ko dolli si jox leen. mais le fait ngeen di joxe subvention bi. est-ce que yoon la wala obligation la pour ngeen jox leen ko wala yéen yéen ay joxe ngir ñoom ñu nekk ci ay conditions parce que léeg-léeg réeroo day am ci diggante étudiant ak mairie coow li na kur. noo nun du force pour nu def ko. waaye nag kam ku fa mënta nekk. sunu njaboot la. ah nun danu ko def ah droit bu nu war defal sunu njaboot ndax man dama leen di wax sax fépp fu. doomu ñi nekk étudiant bu dee Ziguinchor bu dee Bambey bu dee Saint-Louis nañu fexe ba xam dëkk booba ñaata fa ne nan lañu leen man jàppalee waaye nag ñu si ëpp doole fii si Dakar la ñu ne ñu ngi leen di jàppale si seen appartement keroog bi ma fi toogee ak tey daal amaguñu problème fii nu tollu tembe waroon nañu jot seen dotation li si tarde xëy na si état bi la waaye doolu lu jëm si commune bi. ndongo yi bu léeg-léeg bu lekkool di tijji subvention ci école yi ngir fourniture est-ce que yéen yéen a ngi jëndal fourniture école yi ndaw yi. balay ubbi sax dañu koy dogale jënd ndax parents yi seen coono wàññeeku. danu koy dogale jënd pour wàññi coono parents yi kooku moom commune de ñi ci yëpp mën nañu ko seede. kon dafa mel ni Euh, jàng bi moom faratale si yéen. waaw njàng xam nga njàng mooy réew njàng mooy réew gis nga ñenn coow yu bari yëpp boo ko seetee genn wàll gi ay innocent la ñu rek yoo xam ni lu jog mën leen fëkk ndax boo xamulee dara dara newul ci sa bopp lu jóg rek fëkk la waaye kis boppam nekk dara. du neex boppam du neex a këf. du neex a këf kis boppam dara ne si. du neex a këf ndax balay dugg si dara dana ko xool waaye ke xamul dara moom moo bàyyi maayam coow yi ngay dégg yëpp boo seetoon quatre vingt dix mbaa quatre vingt quinze pour cent yi ay innocent lañu lu jóg man leen yóbbu loolu rek mooy coow li ñoo senal état bi état état état te na état deful dara ñàkk xam la wala ñàkk xam la xam naa ndax ku ne bëgg na sa bopp ñu ngi dem léeg nga dégg ku ñu ci gaañ léeg nga dégg kuñ si ci rey mais man lu may gaañ mbaa nga di ma rey kay waruma ko tey di ko def. paj mi moom foofu ñoŋ nam ñaata centre de sante ngeen am parce que village yi ngeen ëmb itam bari na faaw faj mi ñoŋ itam. waaw nun wax dëgg yàlla poste de santé moom ñaar rek lañu ci amagum. mais ak village yi nekk foofu yëpp. waaw ñaar lañu si amagum metti na ndax fi fii nu tollu tembe am na ñaar yu nu demandé am na ñaar yu nu demandé waaye eh, kam ko pareegul moom li nga am rek nga mën a wax. Ah. waaye li nu am daal noo ngi ci jàpp bu baax eh, di jàppale poste yi pour. Ah, maire bi di leen fay yaakaar naa xëy na barewul sax ñu koy def waaye boo demee post ñii maire bi dina fa fay lu mat cinq personnes boo demee poste bu yaman maire bi dina fa fay trois personnes kon alhamdulilah eh, noo ngi jéem. mais est-ce que subvention bi mi ngi ñëw à temps. waaw si fa xam nga état nag wax dëgg yàlla. mi ngi mel ni wala. non du la sonal sax. subvention yi du du ngay gëm ni état yow mii borom kër dangay xëy doo am dépense nga xam ne état it léeg dafay am kalu-kalu dafay am kalu-kalu ndax bu doon seen sago bu at mi duggee rek bépp subvention bu ñu war joxe dugg waaye nag léeg-léeg kalu am bu boobaa dangay ngay gëm ni nag ah ku bëgg defal ñëpp. il faut nit ñi ànd ak dal ak xel ah ndax noonu rek la mën doxe comme noonu rek la mën a doxee yaa ngi koy wax gis nañ ni rëq-rëq yi nga xam ne léeg-léeg mooy faral di am ci yenn ci ci hôpitaux yi ay rëq-rëq ñàkkum faj bu ñoŋ nit ñi di si euh, génn àdduna ndaxam foofu itam matuwaay bi ñeen dañ koy bàyyi xel waaw ñun wax dëgg yàlla ñu nu booleel ñu ngi jéem lu ñu mën ak lu ñu mënul fa seen doole yem seen xam-xam yem ñu nga koy def waaye nag bu fekkee ICP ak. Adama Sarr nekk maire bu ñiit ñiit nag boo ko waxee dañ naan ñu bari nee nañ mu ngi ci yoonu émergence dëgg la. waaw ñiit émergence bañ nañ ko ba am na xale yi dëkk si biir village de ñiit moom lañuy ñu tuddee sax seen sëye ñiit émergence la ñuy tuddee seen sëye. waaye xanaa danga soppi xar kanamu dëkk ba. waaw ah, soppeeku na ndax man bi ma fay toog bari na lu fa manqué woon. ma gërëme ko nag son excellence ndax bi mu joxee ndigal ni ñiit na am ndox ah quatre-vingt-dix am na ndax xam nga àddina lépp xëyul mat waaw na nga naka ngay waxee émergence kon am ngeen problème ndox wax émergence non boo déggee xam nga man bi may ñëw si commune bi si dëkku sama mbokki sàmm yi fukki dëkk yoo jël ñett si am ndox hmm. mbaa ñett yi sax amuñu ndox tey mën naa ni fukki dëkk yoo jël juróom-ñeent ñi ak am nañu ndox waaye kades ka est-ce warul am ndox euh, dëkk village yi nga xam ni ñooy village yu mag yi nekk ci kaw yoon wi am nañu ndox waaye doyul ndax borne de fontaine ci dëkk bu mat junniy nit ak nangam mbaa ñaari junni nit di yeewoo xam nga loolu parce que ba tey ñu ngi mar waaye nag temps yee si gannaaw may ñu ma quatre kilomètres pour euh, brassement soso ah maa ngi wax ministère bi il faut que mu mayat nu lu mat dix kilomètres ndax euh, nekk si la de guerre ni danu mar loolu dafay sax nekk gàcc xel xel mënu ko nangu de waaw ndax xam nga la de Guiers nga xam ñun Dakar moom la ñuy jël yéen xam nga mu nekk dëkk te mënu leen ko am waaw xam nga soixante-douze la fa usine bi taxaw ba léegi eh, kon nun dañu yaakaar ni sax dañu waroon egg si ñu jox nu indépendance nu bañ fay ndox <laughs> ah looloo waroon am kon kon ñun loolu foofu la ñu yaakaar ni fa la ñu waroon toll kon waruñu toll si xalaat ni am ndox wala ñàkk ndox waaye daal li wér te wër daal état bi def na si jéegu yu rëy. Euh, am na service bu ñuy wax OLAC. li ñu ko santoon ni ka dëkk dëkkaan yi si kaw nañu am ndox quatre-vingt-dix pour cent yóbbu na fa ndox léegi nag ñoo ngi wax SONES moom itam mu def jéegu bi OLAC def ba dëkk yu mag yi ñoom itam euh, ndox mi mën dugg si kër yi. Ah, ndax dafa dafa jot. ok balaa ñuy ñëw ci courant bi est-ce que euh, usines yooyee ñëw sanc ci commune ba. Mm-hmm. ñu ngi leen di jàppale ci RSE. bu jotee est-ce que ñu ngay def est-ce que yéen la ngeen di bëgg ci bëgg-bëgg boobu la ñuy topp. waaw ñi ngi jàpp bu baax. Eh, yaa ngi rafetal de monsieur le maire. non non ngi jàpp bu baax. waaye dama wax ni partenaires ya fa ne ku ñuy wax West Africa Femme. mi ngi jàpp ndax tabax na fa poste de santé. boo xam ne dem na lu mat soixante cinq millions wala soixante dix millions moo ko tabax équipé ko. ah moo tabax na fa bibliothèque pour xale yi salle bu sept mètres néegu gardien collecteur ay toilettes war tabaxaat beneen salle kooku mi ngi def eh, mi ngi def si càmm gi. jël xalaatu chaque année nga bay leen lu mat quatre-vingts hectares ñax fas yéene wut machine buy góob ñax mi di ko bolooti ah jënd na 4 x bu bees jox commune bi ndax commune gannaaw gi dafa yaatu mu ñu xëyee ñiy soxla oto dafa bare ah, mi ngi def si askan wi ñi nga xam ne nii ñoom ñoom ñoo xam ne ñoo ñoo ko jox seen suuf fu mel na fa ma dëkk mhm. caareen ndeppi waa ngeen ñu ngi ko joxoon deux cent soixante dix kon ñu ngi jéem daal ñu ngi jéem deux cent soixante dix hectares moom aménagé na leen cent hectares yoo xam ne dafa ne leen seet leen façon bu ngeen bëgg ba pare tant que maa ngi fi nekk di liggéey chaque année danaa leen jox vingt-huit millions pour ndàmpaay. est-ce que ñeneen yi usines yooyu nekk itam jotu ñu roy si ñoom. waaw léegi am na am na fa ferme de la Teranga moom li ñu ko jox si suuf asaka ji kii amu ko moom nag seen huile la tudd woon ñu di ko soppi ba tey mu tudd ferme de la Teranga waaye nag su bëggee neexoo ko askan wi li kii di def def koy jéem. comme deful xaj bi moom. non moom li muy def daal li nga xam ne digganteem ak trésor li ko yoon teg pour mu fay ko moom mi ngi ki fay waaye nag. da ko bi. tey li mu ciy xaar waaye li mu euh, war jàppale commune bi si tabax école war jàppale commune bi. si ndox yooyu moom defagu ko waaye nag kam ka presque day doog a commencé liggéey moo tax mënaguñu si xuus. waaye su fekkee ni gis nañu mi ngi def am njëriñ te deful na moroomam def yat du am jàmm. courant itam ci dëkk lu am solo la fan ngeen ci tolloon. waaw courant moom itam président moo joxe woon ndigal boobu ko ñuy wax Mouhamadou Makhtar Cissé noo ngi koy ñaanal yàlla euh, département dëgg na yëpp kontaan si moom. dinañ ñëw ci ponk boobu. waaw léegi courant bi tey fu si. waaw moom laa euh, si foofu laa jëm. waaw ah. dama ne moom Modou Makhtar Cissé moomu boobu moo nekk directeur yu Senelec. waaw ba kii waxee ni euh, président joxe ndigal euh, commune bu toll ni ñii ni benn fiilu courant nekk ko fa mënuma ko dégg ba muy daata def deux cent commune bi boo ko defee ñetti xaaj ñaar yi dugal na ko courant. Hmm. li dese benn commune bi am courant bareetul léegi. ah xaaj daal ñaar yi am na courant benn bi amagul courant. waaw moom laa wax. li mm. li ëpp am na. waaw ñëw naa gisee directeur bii fi nga xam ni moom la fi yàlla teg muy Biteye moom itam mu yaatal ma waxtaan ak man xamal ma ni itam naa ka defal euh, prioritaire yi. priorité. waaw ni yi war a jiitu ma jël dëkk yi nga xam ni digganteem ak courant bi un kilomètre deux kilomètres tofal si trois kilomètres ba quatre kilomètres ba cinq kilomètres xam nga nun dañu yore ay commune rurale commune boo xam ni man ngay daw si biir commune bi ay trente kilomètres quarante kilomètres dafa nekkul euh, communes yu ndaw. commune rurale la ñi moo tax pour lépp matale euh, du yomb. waaye nag ciy def jéego quand ñu ngi si def jéego état bi mi ngi def lu mu man mhm. commune bi itam li ñuy tollool ñu ngi ciy def. Euh, ñu ngi si ñu ngi am daal soppeeku bu baax a baax baax. infrastructure yi fi ngeen di tollu cadre de vie nit ñi mën a toog féexlu commune bi demalante dem bi mën a yomb euh, infrastructure yi tali yeeg xanaa am na ay jéego. yooyu moom mën naa ni danu koy doog di sumb ndax euh, sama yoon wi ñëw Dakar bokk na si si xëyum ndaw yi euh, xale yu ñu ma jëlal pour ñu mën a toppatoo yooyu man set gën a seetal xar kanamu commune bi man na seet place yi nit ñi di feexloo ñu mën a kat defar ba mu am coppeeku amu fa amugu fa woon waaye nag am nañu bayaal yi eh, li des xam naa commune dana si jàpp waaye état dana si jàpp mhm. pour mu loolu day taaral xar mu dëkk de. waaw loolu xam nga dafa am solo si dëkk te ñun fu mel na lag bi nga xam ni euh, dëkk bi dafa sëpp lag bi bu fekkee dañu aménagé yu mel noonu si peggu lag bi dafay mel nag euh, aménagement bu ne si xeru géej mhm. kooku dafay am solo te Dakar boo demee si corniche bi fële gis naa fa yu demee noonu. Mhm. noonu la ñu ko bëggee yaa ngi xalaat loolu ci commune bi. Ah, waaw ba ma ko gisee kay dama naan lii kay moom tey bu ma ko mënoon moo ko mënoon yenu yóbbu ko commune bi sax. waaw bootul dañoo xëy topp sa taal. est-ce que koppar gi mate na yéen koppar gi ngeen am mën a loolu ak jàppandalu état. waaw xam nga. wala ngeen uti ay partenaires. waaw am nañu sax fan yii samay action yi demoon nañu France am benn commune commune bu ñu fa lëkkalool bu ñu wax espagnol. lëkkaloo ñi Cheikh wa commune di ñi bare na lu ñu nu dig si wàllu ndox mi wàllu santé bare na daal euh, lu ñu digee ba sax weer wi nuy seenu ñoom war nañu fi ñëw ah am na projet yi ñu tëggoon yoo xam ni dana war dem si ay cent quelque million millions mm-hmm. ah nee na ñi mën nañu koy financé chaque année kooku nag boo ànd geeg li commune bi di jàpp ak li état bi di jàpp ah dana mën a soppi développement wax foofu boobaa waaw mm-hmm. kon yéen a ngi ci tànk yooyu ñoo ngi ci tànk yooyu Adama Sarr moom mooy maire bu commune bu Gnitte Euh, daanaka ñu ngi ci njeextalu émission bi wax wàllum politique ndax responsable politique ci diwaanu euh, Saint-Louis euh, tey laata ñuy ñëw ci wàllum les élections mais déggoon nañ fa ay opposants ba ñu la tabbee ni def la candidat pour élection maire yi am na ñoo xam dañoo demoon def liste parallèle noom ass Babacar Guèye ak ñoom Mor Diaw ñoom tey nga gagné leen tey est-ce que ñoom rejoindre ñoo nañu rejoindre la waaw ñooñu samay mbokk lañu ndax ñoom ñëpp sama rakk lañu ah kenn ku ne nag am na duraawu bu bëgg jotee nga bëgg. waaye yàlla mooy dogal. yàlla dogal na ñetti liste yëpp suñu boole woon li ñu am si local yi eh, danaa leen ëppalee deux cent soixante quinze voix kon. Ah, population bi. tànn kon man la tànn. Eh, bi ñuy ñëwee gisee nañu ak président mu joxe ndigal. liste parallèle amul. na ñëpp. bootu sa ñëw nu ànd nu liggéey ndax gox bi noo ko bokk. te kenn mënu si dem bàyyi moroom mi. Mhm. bi ñu ñëwee nangul naa leen ko. la président waxoon ndax bañ naa ko ba première corna sunu coordinateur campagne. Euh, PLD la ñu ko defoon. Mhm. deuxième bi dooga a nekk euh, APR. waaw troisième coordinateur bi nekk réew mi waaye nag euh, élection yi déception laa si am. yii nii nii. waaw législative du tax nga am si déception. waaw dama yaakaaroon ni ñun ñëpp suñu àndee te liggéey mu nekk dëgg. dañu war a am quatre-vingt-dix pour cent man nag erreur bi am na suñu jóge si man. mooy lan ndax dama campagneul ci commune bi kam ka dañu ma tabb si département bi te ñooñu sama rakk la ñi nee na ñi ñëw nañu ma bàyyee coordinateur yi ñu coordonné commune bi man ma dugg si département bi def campagne ndax. kon li nga li nga li nga baaturul campagne ñit moo tax ngeen ñàkk foofu. mais ñàkkunu fa. gagné noo lu mat 60 pour cent. waaw mais dafa waaye nag dafa tuuti. déception la am si man boo xam ne dama si am gàcce. mais maanaam yow boo jàppul ci biir mi euh, du dox. non dana war na dox sax xam nga nit ñi ñee xëy na ñëw nañu maa ngi si euh, beral cant ku ñuy wax Mama Ba mooy coordinateur bi. ñëw na cent pour cent xëy na fa dooleem toll moom ñëw na waaye ñi nga xam ne nii ñoo ñëwoon ne dañu nuy jàppale mu di waa bis du ñàkk ak euh, waa réew mi ñoom as Babacar su fekkee ñoom ñëw na ñu seen nit ñëwuñu te liggéey yaali wuñu ko ndax nun dañu yakaar ñooñu am nañ nit léegi am na ñuy nit am na ñuy nit xam nga nit ñi. réew mi tam léegi dañ koy tudd nii rek. non moom moom am na nit ndax élection yi amoon na lu mat mille cinq cent waa. ko am na nit. waaye nag nit ñooñu ñëwuñu. donte moom ñëw na ñëwuñu. ok te nu ne itam liggéeyaale wuñu ko. ok ndax nun de nu ñëw nañu rek. ñun ñëpp benn lañu. maanaam ñëw nañu waaye seen nit ñëw. waaw seen nit yi moo ñëwul. ma ngoog léegi Adama Sarr ñuy dem euh, xeex bu métti ah, am na ci seen diwaan boobu Dagana. Mm. diggante Matar Cissé ak ki nga xam ne moom moo di Omar Sarr ku nekk di xëcc ne yow yaa indi ndam bi yow ban commentaire ngay def foofu. waaw xam nga ñoom ñaar ñooñu famille lañu te xeexuñu xam nga population mooy jaxase. population mooy wax ñee andi faral Omar ñi faral Makhtar Cissé kenn ku ne bëgg jox pouvoir sa moroom waaye Dagana li leen jig ñoom ñaar ñoo ñu ñu ànd nekk benn. est-ce que dina yomb. dana yomb famille la ñi famille la ñi. parce que ñenn ñi dañuy gis ni Makhtar Cissé dafa war a ñëwaat ci gouvernement bi ñu war a defar. mais dafa war ñëw. Maxtaar dafa wër ñëw dafa am place Dagana na fa Omar Sarr amee place te Omar Sarr ku nekk xam na ni gaynde waalo la kon ñoom ñooñu suñu àndee nun ñu topp si ñoom président lu mu bëgg département Dagana dafay yomb ndax nag kenn ku si ne am na loo fay peese waaye bu doon ñoom rek coow doo ko dégg ndax dégguloo Omar Sarr mu ne Maxtaar nangam dégguloo Maxtaar mu ne Omar nangam te doo toog ak moom ba dégg kenn tudd si morom mi mais population bi ñoo bari seytaane kenn ku si ne nang ma toogee ak eh, damay jéem yàq Omar mba bu nu tooguleet ma nekk fële bëgg Maxtaar ni ah, man la àndal may wax si keel lu moo indi problème bi loolu rek a indi problème Mankeur Ndiaye itam dagana la dëkk te fan yi dégg ngeen ko muy jël position mais ni ko xaw a nekk ci l'opposition bi Mankeur moom doomu dagana la kenn ëppalewu dagana waaye nag politigul Maxtaar nag dafa politique dafa jëriñ askan wi ndax nun maire yi rek nun maire yi bi Omar Sarr ñëwagul amul maire boo xam ni Maxtaar jëndul oto jox la pour commune bi dimbandikoo ko ndax maire bu fekkee benn oto maire rek la ñu woloo maire bi yóbboo nan la ñuy def waaye maxtar ak Umar Sarr. mais Maxtaar leen jàppale yéen. non ñoom ñoom ñëpp ñu jàppale. Mhm. ayu Maxtaar Sarr bi wala ayu Umar Sarr ban ngeen ci gën a gis seen bopp. dama la wax ni la man yëpp laa gis sama bopp mhm. même Umar Sarr bu newulee ci gouvernement bi. lépp loo xam ne nii sama soxla la bu ma ko waxee daf koy def dont àndunu sax ndax néew ma si parteem mais nag noo bokk mbokk gi noo bokk département Dagana léegi euh, troisième mandat bi ñëpp a ngi naan Macky Sall troisième mandat ak ainsi de euh, da nga koy digal mu dem man de yàlla moo xam li gën mhm. yàlla moo ko xam waaye xam naa ne daal li ma mënoon assuré si dogalu yàlla man bu commune yëpp meloon na sama commune. mooy. ah sama population nu ñu ma gëme dama koy wax ni que te doy lu nu si moom. Hmm. ndax nag li nu gis mu def si réew mi si Senghor ba léegi noo ngi fi. waaye li nu gis mu def si réew mi amul benn président bu ko fi def. da ngeen koy mu wax ah man bu doon sama sago man dafay continue dafay amaat cinq ans hmm. man bu doon sama sago dafay dafay dafay euh, fii ba hmm, euh, deux mille vingt sept euh, moo fii ne non non na la moom am na lu mu sumb xëy na nit lu mu jàmbaare jàmbaare. Eh, bu fi jógee bàyyi lu eggul. l' bi am na doole tamit bul ko fàtte bi ku xam nga ni xam nga ni ñooñu. xam nga ni ñooñu ñooñu. nga xam ni yéen xam nga ñooñu non amu fa dara amul waalo dara fa la bokk nag mënuñu ko fa génne waaye nit ki la muy am si béréb moo ko fa liggéey ndax xalifa Sall man xamuma xaw ma ko ñëw ne ñëw ne ñi ñi. may maire bi eh, même bu dee opposant war na ñëw nuyu ma ndax dama koy dalal rek sama mbokk la waaye nag li ma lay wax ni ñooñu ànd ànduñu dañuy naxante non xam nga ni dañuy naxante bokkuñu ay réalité xam nga ni pièce ku ne xam na ni pièce seen xam-xam ak li ñu xam si gouvernement du ñu topp si gannaaw Sonko fi ñu toll pion la rek ay pion yi ñuy teg rek. lu sorewul sax mujjantal bi lan lay doon. moom mujjantal bi pëcc xoo lay doon ku nekk day dem boppam. <laughs> ah xam nga ne Khalifa Sall xajul si a Sonko bu fekkee dëgg la ñuy wax rek ak ñeneen ak ñeneen ak senegal ñeneen ay xale yoo xam ni. kenn déggugu leen te dañuy ñëw. te kenn déggugu leen kon ñi gëm ni eh, ñi xamul rek ña Sonko Sonko Sonko non non non non. Ah, Adama Sarr am nañ mbégte lool tey dalal la di fàttali ni yow yaay maire bu ñiit ñiit nag mi ngi nekk ci diwaanu Saint-Louis département bu Dagana euh, ñun tey suñu wàllu bopp fii si rajo Rewmi FM am nañ contentement bu baax a baax dalal la fii ci émission bi. waaw ma ëpp kontante ndax lii lu am solo la ndax nag réew mi ñëpp ko bokk te réew mi dañu ko war di waxtaane euh, te président. lu mu jàmbaare jàmbaare xamul lépp am na loo xam ni man naka sax jële si émission nit dégg ko jégal jottali ka mu seet nan lay taxawe ba rëq-rëq ba am foofu mu mën ko régler waaye noo ngi lay xamal ni daal noo ngi sant sunu président di ko ñaanal yàlla wér di ko ñaanal yàlla gouvernement bii muy sumb mu nekk gouvernement boo xam ne nii Sénégal dafay wax yeexoon yeex na ñëw yàlla na ko yàlla defal a ah, ñun ñi nga xam ne am na si nun confiance pour nu war ko toogal assemblée la muy yaakaar yàlla na yàlla def nu réussir lu ko du yomb ren du jafe ndax euh, gis nga képp ko bëgg réew mi képp ko bëgg réew mi lépp loo xam ne nii mooy doxal réew mi da nga see ànd moo tax Pape Diop ñëw ah Pape Diop borom xam-xam la borom xam-xam la xam nga ku ni nan tënk réew mi bëgg nga réew mi fi nu toll ñëpp war a ànd ku ne am na xam-xam dafa si war a ànd wane xam-xamam li mu man man ma am naa xam-xam te manuma si jëriñ sama réew man d'accordu ma si réew boo amee xam-xam danga koy wane man si jëriñ sa réew moo tax assemblée bi ñi xamul ñooy wax waaye bu ñu dawalee tuuti xëy na si départ bi dana jëm am ñu kii waaye bu ñu dawalee tuuti eh, ñu dëggu ñëpp ànd ak dëgg. am na solo kon ñu ngi lay sant di gërëm bu baax. maa ngi sant bu baax. jërëjëf. jërëjëf mbokk yi jox leen dig daje ba dimanche euh, prochain incha allah rabi ak beneen gan fii ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi di gërëm Léopold Mendy moom mi nekkoon ci xarala gi euh, jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ni yéen ñu doon may nopp.